tey jii Sénégal Sénégal li lu tax mu taxaw fonction publique bokk na ci boo demee yenn dëkk yi amuñu fonction publique amuñu administration ñun am nañ administration lan moo tax parce que dafa am ñoo xam te ni ñu fa nekk ñu xarañ lañ léegi nag dañoo tàmm rek ñun dañoo tàmmoon dañoo tàmmoon ñoom di gis fonctionnaire lu ñu leen def loo ñu def lu ñu leen wax loo ñu wax lu ñu leen noppiloo ñu noppiloo loolu moo fi jeex loolu moo fi jeex maanaam tey jii ñoom buñ ñu xosee ñu xosi leen buñ ñu xosee ñu xosi leen te ñoom lañ xamul ñoom ñooy bu ñu oowee ci combat ñun dañ leen di indil combat boo xamante ni ci xam-xam lañ ko lal ndaxte combat moom ñaar la xam-xam la ak fit xam-xam baa ngi fi fit baa ngi fi donc ñoom war nañ xam ne tey jii suñuy avantage yi nga xam ne fonctionnaire war loolu sax duñ ko war ñu ko tuddee avantage parce que tey jii fonction fonctionnaire yi yàlla xam na ni suñ leen waxee ni quelqu'un par exemple les fonctionnaires les mieux rémunérés par exemple ñi génn ENAM def bac plus 6 ñoom ñoo amuñu cinq cent mille amuñu cinq cent mille loolu la ñu war a wax gars yi ñu xam ko amuñu ko amuñu cinq cent mille gis nañ ñoo xam ne dañuy plafonné def trente ans de fonction publique du ñu am cinq cent mille tandis ñoom député mu ngi am un million et quelque ministre ngi am trois millions quatre millions mais ñooñu dañu gën a ñu jël jabar ambassadeur jox ko cinq cent mille tandis que fonctionnaire bi moom mu ngi presté donc tey jii li ñu war a wax bari na donc ñoom li ñu war a wax waxuñu ko moom mooy contrat spéciaux yi moom mooy agence yi yi nga xam te ni c'est pour caser de la clientèle poli politique ak institution yi nga xam ne dañ koy jël di ko multiplier di ko créer di ko créer waat donc tey jii li ñu leen di xamal moom mooy ñi nga xam te ni ñoom ñooy jiitu ñoom ñoo yor nguur gi ñoo ngi ŋànk nguur gi tey jii nañ xam ni administration centrale ak fonctionnaire yëpp taxaw nañ pour jàmmaarloog ñoom lu luñ ci bañul bañuñu ko ci xoolal poñe poñante nag moom bët bu toj xaj na ci bëñ bu damm xaj na ci heure supplémentaire moom li ñu ciy wax rek moom mooy euh, euh, dafa mel ni ministre bi ndeysaan moom dam ko xaw dama ko yërëm sax ba ma ko déggee muy wax dama ko yërëm dama ko yërëm parce que li muy wax dangay xam ni kii xamu ci dara daara daara daara dara boo déggee ministre mu naan dañuy heure supplémentaire dañ koy mainteniral euh, dañ koy bàyyi waa armée ak waa sécurité ak waa santé ndax ñoom dañuy liggéey samedi ak dimanche waaw monsieur le ministre médecin bi du liggéey di ba dimanche déedéet dafay di am système mu kii système mu garde rotation loolu la ñuy wax système mu boo demee dans le privé on parle de système de car donc yooyu noonu waaye nag xam nga loolu moom moo lay wax ne déglu ñu seen conseil moom ci ministre de les finances am na ay inspecteurs du travail yoo xam ne ñu ngi ci wetam bu leen laajoon du wax bêtise boobu.